mais loolu faaw ngeen lijjanti ko mais mënu len imaginer mënu len imaginer fan ci ah fan fale fale <laughs> non nanu xaar tuuti foofu soreetul yagatu gis que mënu len xam difficulté bi comité d'organisation bi am pour am terrain vraiment mu bëgg ngeen tàccu ma leen bu baax a le comité d'organisation avec Abbas Fall wax ji Koutou. ci gudd ndaxte ñun ñëpp xam nañu li war ku nekk xam na fi jaar ku nekk xamna limu wara def gis nga Macky Sall Macky Sall Le lion, le lion qui dort le lion qui dort gis nga fii Yewwi Askan Wi ay gaynde yu taxaw te nelawuñu ñoom nga jàkkaarloon gis nga boo xoolee xaar kanam yi xam ni sama gars yi ay gaynde lañu te nelawuñu xefuñu gis nga Macky ci boppam Macky ci boppam xam na ni yoon bi jël moo ko gën a xam ni du dem yoon nag boo ko jëlee mu leer leen doo dem Kengel Ben, da ngay reculer président Macky Sall reculer Moi, de mars suis me génnee gis jeunesse bi me ma jël kaddu fële ci place dans le de ni président Macky Sall dans certaines circonstances reculer n'est pas un signe de faiblesse T'as fallu la ñu toll gis nga le 16 nga reculé waay le 16 nga reculé waay kuus xam nga dafa am ñaar yu dajaloo ci sa tur bi xam nga dafa am ñaar yu dajaloo sa tur bi kuus uus que kuus uus le 16 na waa ji président Ousmane Sonko gis nga. nous bëgg que yokku de travail. parce que nos démocratie on la attaqué sous sur démocratie pourquoi attaquer attaquer jàkkaarloo il était à nos côtés en 2011 et il sait que nous sommes des combattants 2011 il est dit, on est encore là à faire face on est encore là pour la démocratie et les libertés et il va partir et nous allons continuer à nous battre cette fois-ci pour le développement de notre pays avec ces illustres personnalités que vous avez derrière. vous nous avez à vos côtés. on vous sent à nos côtés. tous côtés. Nous sommes en Sénégal. Le Sénégal, c'est démocratie, qui liberté. puis le à qui, les nit ñi voté sur résistance donc vous pouvez accepter ce qu'ils ont. Comme le 16 à la première heure à la première heure nous n'avons plus de tur bi le ànd ak le président Ousmane Sonko. dama vous wax and and to do, and and to do, and God and nawle dem ba jeex rek ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam jërëjëf merci beaucoup